alqaa'il walaa yaatuunaka bi mathalin illaa ji'naaka bilxaqi wa axsana tafsiira tumma salaatu wassalaam ala nabiina muhammad wa alihi wa sahbi amis auditeurs il n'y a pas de problème il n'y a aucune question aucun fait de société qu'on te soumettra, dit Allah subhanahu wa au prophète Muhammad, paix et salut sur lui, sans que nous te donnons la solution et la meilleure façon d'appliquer cette solution. mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullah ñu dellu sant yàlla subhanahu wa ta'ala mi nu wërsëgal daje ci bis bu tedd bi ànd ak sunu mbokk seeni Jóob borom bi subhaanahu wa taala wax yonant bi alayhi salaam ni ko amul benn laaj amul benn jafe-jafe amul benn xew-xew buy xew ci dund gi ñu ñëw laaj la ci lu dul danaa la jox saafara ba ak nan ngay jëfandikoo saafara boobu ca na mu gën a rafete suratul furqaan ni wala yaatuunaka bi mathalin illaa ji'naaka bil haqqi wa ahsana tafsira notre séance d'aujourd'hui se consacre à la solution de phénomènes nouveaux qui suscitent beaucoup de questions et d'inquiétudes le premier fait de société c'est le takku suuf mbokk yi sunu dañu fas yéene taxaw ci ay xew-xew yoo xam ne day am ci sunu société bi di yu bees yoo xam ne laaj yi jolli na ci jaaxle yi bare na ci bi njëkk ci boobu nag ci tomb yi mooy takku suuf le takku suuf c'est un mariage qu'on conclut en cachette sans témoin et de la même manière naturellement le ménage qui s'ensuit se vit en cachette à l'insu des deux familles et de la communauté mbokk boo xamul takk suuf mooy sëy boo xam ne ba ñu koy takk kenn yëgu ko ñaar ñi mu ñaar ñi ko séq rek amul seede amul dara ba tax itam sëy ba cay topp dañu koy sëy ci ci ci nëbbatu am na ci yoo xam ni sax fami yu ñaari way dencante yi xamuñu ni ñii dañu sëy bu ñu ko xamul nag rawatina askan wi quartier ba ñuy dund ak desitu mbokk gi amis auditeurs l'islam interdit le takku suuf ki est illicite haram parce qu'il viole une règle de validité du mariage qui est de rendre obligatoirement public le mariage Et le prophète alayhi salam dit et cela de son temps s'il le faut au son <clears throat> takku suuf boobu atteem ci lislaam mooy tere nañu ko xaraam na daganul ndax ndax dafa jalgati benn ci sart yi nga xam ni bu matul rekk sëy ba baaxul sart boobu mooy siiwal sëy bi ci jamono yonent bi alayhi salaam mu ne wadribu alayhi bil xirbaal ay bidduf ñu daan ko def ci tëgg tabala tey ji média yaa ngi fi réseaux sociaux yaa ngi fi woote yaa ngi fi lépp a ngi fi le prophète alayhi salaam dit mariage n'est pas légal n'est pas licite, n'est pas valable s'il n'y a pas l'accord du wali de la femme, s'il n'y a pas une dot convenue et au moins deux témoins légitimes justes et respectés. bon sart yooyu ñooy sarti wéral sëy yonent bi alayhi salaam wax ka mu ni laa yaxillu nikah benn sëy daganul sëy daganul bu fekkee amul wali kilifa ndaw si àndu ci wa sadaq ak can boo xam ni bii joxe nañu ko xam lim ba wa yi adlin ak ñaari seede lu mu néew néew ñoo xam ni ñu jub ñu maandu ñoo xam ni ñi nit ñi jox lañ leen cër ci société bi pour les oulémas de Médine un mariage n'est valable que si on en fait part à la communauté après l'avoir célébré en présence d'au moins deux témoins mbokk baxdu ahlil madinati lenn ci ulamaawu madinatul munawwara ñoom dañu ni sëyday iza alanu suñu ko siiwalee wa ashhadu ñu amal ko ay seede waaxidan baxda waaxid kenn ak seede keneen seede lu mu néew néew ñaari seede fa jaayis booba lay door a dagan booba lay door a dagan bon takku suuf wala maaw ahlu madina daganaluñ ko pour d'autres savants ce qui différencie le mariage de l'adultère et de la prostitution est la présence d'au moins deux témoins la présence des témoins donc pour nos savants dans le monde musulman le takku suuf la mariage secret caché et de l'adultère du concubinage mbokk yi lenn ci boroom xam-xam te mooy li gën a bare ñoom dañu ni li li taqatle sëy bu dagan ak njaaloo ak nekkaale mooy seede yi alfarq bayna nikaa wa sifaax ashuhud bon ulamaawu lislaam fiqu lislaam boroom xam-xamu lislaam takk boo xam ne dañu koy nëbb ñu ni takk la ca suuf ñoom xoolewuñu ko lu dul njaaloo ak ñaar ñoo xam ne ñu ngi nekkaale bu ñu dundee ci lii dee ci lii yal nañ ci yàlla musal yàlla mbugal leen Ces textes, amis auditeurs, rendent donc obligatoire l'implication des familles à travers les walis, l'information des membres de la communauté, qu'ils soient des parents, des amis, des voisins. Et pour cela, le prophète alayhi salam recommande aux maris d'organiser une réception ouverte à tous, aux connaissances comme aux étrangers, aux riches comme aux pauvres. lii ma la limal lépp ci ay nusuus ay tëralin dafay wane ni mënula ñàkk wareef la obligatoire ñaari famille yi ñi nga xam ne ñoo war a sëy ñaari famille yooyu ñoom ñooy dox sëy bi ñoo koy takk yëkk beneen bi dafa nekk farata obligatoire ñu xamal askan wi wépp moo xam ay mbokk la moo xam ay xarit moo xam dëkkandoo yi ni diw ak diw maye nañ leen ay borom kër lañ ay woy dencant lañ ngir loola nag yonent bi sallallahu alayhi wa ali santaane ki nga xam ni moom mooy borom kër gi jëkkër ji na def benn réception na woote réception na invité invitation boobu it mu ni ku mu xam ak ku mu xamul borom alal ak ku ñàkk alal mu ne ndax bare na invitation wu sëy yoo xam ne duñ ce woo lu dul ñi ñi woomle ñi nga xam ne ñooy néew gi doole ñu boddi leen Abdourahman ibn Awf dit au prophète Mohammed paix et salut sur lui j'ai épousé une ansar que lui as-tu offert lui demanda le prophète Mohammed paix et salut sur lui il dit une pépite d'or le messager d'Allah la meilleure des créatures lui dit organise un festin, serait-ce juste une brebis mbokk Abdourahman ibn Awf ñëpp xam nañu ko ci Médine jóge Màkka nekk ci milliardaires ya ñëw di yonent bi alayhi salaam tazawwaj imraatan min al ansar dama takk benn ndaw soo xam ni ci lansaar la bokk yonent bi alayhi salaam ni ka loo ko may maa suqta ilayha lan nga ko cene mu ne ka nuwaat min zahab mu ne may naa ka benn benn or may naa ka or ah mu ne ka nag léegi loolu waaw waaye léegi nag awlim walaw bi chat na nga organiser réception nga woo nit ñi rey même bu doon gàtt rek nga am boo ko doon wax ci suñu jamono bi mu ne même bu doon ganaar ngay rey reyal ganaar wala nga rey petax waaye nga woote rek togg lenn nit ñi lekk xam ni sëy am na en principe ami auditeur la réception se fait le jour où la mariée rejoint le domicile conjugal mais celui qui en a le moyen peut organiser deux réceptions une le jour de son mariage et une autre le jour de noces afin que nul n'en ignore mbokk yi bu dee ci lislaam moom réception bi ci céet ga la bu ndaw si ñëwee fanaan si kër kër boroom këram bu xëyee ci la ñuy woote berndeel rey gàtt boobu mu wax waaye nag ki nga xam ni mën na ka mën na ko ah comme ni ko ñu bare di defe ci suñu jamono bii kenn terewul nit ki mu mu mu berndeel ci bisu takkam bu bu ñu ko mayee ba pare mu woote berndeel def réception waaye bii nga xam ni moom lañuy def ci ceet gi moom boobu mooy bi nga xam ni mënula ñàkk ci lislaam ngir ñépp xam ni diw ak diw mi jëkkër ak jabar lañu bu ko defee ñu xam jigéen ñi am boroom kër ñu xam góor ñi nga xam ni am nañu ñeenti soxna ku ñu labatati nga xam ni kii du waaja compagnons et tabi'in ont condamné le takusuf. Abu Balhin dit à Muhammad ibn Hatib, je me suis marié deux fois sans qu'on le tambour pour faire part à la communauté. Muhammad ibn Hatib lui dit, tu as véritablement agi de façon très incorrecte. car le prophète alayhi salam a dit que la différence entre un mariage légal et un mariage haram est le fair part au son du tambour mbokk saxaaba yi ak euh, seeni tofo muy taabiin yi ñoom ñëpp dañu dañu tere xaramal takku suuf boo xam ne dañu koy nëbb abu balhin dafa wax muhammad ibn xaatim ni ko inni tazawajtu mraatayn lam yudrab alayhi bi duuf mu ne man takk naa ñaari yoon sëy naa ñaari yoon yoo xam ni ba may takk itam kenn siiwalul kenn berndeelul kenn tëggul tabale yi ndax tabale yi ko doon tëgg ci njël ñu xam ni a ah, céet am na mu ne ka bi sama sanaat mu ne que li nga def ñaaw na bon na jàdd na yoon jàdd na sunna ndax yonent bi alayhi salaam nee na inna fasla ma bayna al xaraam wal xaraam as sawt mu ne que bi alayhi salaam nee na lii dox diggante sëy bu dagan ak bi araam moom mooy siiwal ga yaani darb bi duf ñu tëgg tabale ji tey jii du tëgg tabale yi waaye dañuy invité tey jii nit ñi dañuy organiser yendu tey jii berndel la ma sœur mon frère ne te marie jamais en cachette car si tu le fais tu n'auras aucun des droits d'un conjoint ou d'une conjointe aucun droit d'être entretenu par ton époux et de prendre soin de de ton de ton époux tu n'auras droit à l'héritage et il droit à mbokk mbokk bul nangu mukk ko suuf nëbbatu di sëy dafa lay xañ yépp àq yi nga xam ni moom la way dencante am ku ci ne si digganteeg sa moroom dana la xañ boo dee jigéen ki nga xam ni moo la takk bu ko neexee mu ne man dara waruma ci yow yow itam boo bëggee toppatoo sa borom kër di jaagar jaagar yi di taal cuuraay di dem di dikk mais loolu dafa laaj ñëpp xam ni kii sa borom kër boo nëbbatoo nga def takku suuf doo am doo am cër ci miraasam moom it du am cër ci sa miraas ma sœur mon frère si tu fais takku suuf tes enfants n'auront pas de père officiel connu et reconnu. Ils n'auront pas de frères et sœurs connus et reconnus. En acceptant le takkusuf, tu acceptes d'être un zéro conjugal, une page blanche sur le registre matrimonial des mairies de ton pays. Autrement dit, tu vivras et mourras sans le titre d'époux d'un tel ou d'épouse d'un tel. Tu seras vu toujours comme celle qui forniquait tu seras vu toujours comme un concubin une concubine mbokk soo nangoo def takku suuf sa njaboot du ñu am baay boo xam ni bii dañuy xam ni kii mooy seen baay ñu xam ka ñépp nangu loolu it du ñu am ay mag yu góor yu jigéen rakk yu góor yu jigéen yoo xam ne xam nañu ko ñooñu itam nangu ni ñi suñuy rakk lañu ak sunuy mag boo nangoo takku suuf daal nangu nga nekk zéro yow doo dara doo dara ci wàllu sëy yaa ngi mel ni kayit wu weex tàll ci téere boo xam ne dañu ko bind lépp ñuul yow rekk nga nekk ci kayit bu weex buñ demee maire yow bokkoo fa bon yow sëyoo ci sa bëtu nguur yow dangay dund rekk doo dégg mukk boroom këru diw soxnay diw boo deeyee duñ ni soxna yi diw boroom këru diw moo dee nekkaaleb diw ba rekk moo dee ki doon njaaloog diw rekk moo dee nit ñëpp nga jaaxal leen ci nan la ñuy waxee sa mbaax comme yonent bi alayhi salaam nee na lu bon li bu ko kenn tudd nu ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu wërsëgal nu boole ñu ci ñi muy musal ci xeetu ñaawteef yi wërsëgal nu boole ñi ci ñi muy defal ñuy sëy sëy yu dagan mu nangul nu ko jubalal nu jubal sunu njaboot loola borom bi mën nag yomb nag yal na ko defal يحمل التكريم بصلاة الله يا رسول Je veux profiter de cette question du Takusuf pour vous rappeler que ce type de mariage est un volet d'un programme de déstabilisation des sociétés à majorité musulmane. J'en ai parlé ici il y a plus de dix ans. Ceux qui veulent atteindre l'islam s'attaque à ces trois piliers que sont la famille l'éducation et l'autorité mbokk yi ma jaar ci bii tomb fàttali ni takku suuf dafa bokk ci benn programme boo xam ne noonu lislaam yi ñoo ko tëral ngir màbb société yi nga xam ne jullit lañu wala ña ëpp daal jullit lañu tomb bi waxtaanoon naa ci fii waxoon naa ci fii ëpp na fukki at léegi ci kàttanu yàlla ñi bëgg mën a am yoon ci yàq lislaam ak yàqal ka dañuy jéema a daaneel ñetti ponk yi nga xam ni ñoo téye kër gi te mooy famille bi mooy yar njaboot gi beneen bi mooy kilifteef si vous éliminez le mariage vous éliminez la famille qui est la cellule de base de toute société. C'est dans ce cadre qu'il faut classer la diabolisation du mariage. On vous dira toujours le mariage n'est pas n'est pas n'est pas bien, c'est pas du bonheur, sëy neexul. On fera la promotion de l'union libre, de l'égalité absolue homme-femme, de la parité homme de la polyandrie, du mariage homosexuel et j'en passe. De toutes ces questions qui vise un seul objectif abattre la famille mbokk gis nga boo fexee ba dindi sëy sëy amatul mooy toj nga kër tojat nga kër kër dootul am ndax kër mooy xaliya bi bi jiitu mooy mooy brique bi jiitu ci fondation wu société ci foofu nag ngay dugal li ngay dégg yépp ci ŋàññ song bi ñu song wàllu sëy bis bu ne nga dégg ñu ni sëy neexul sëy neexul bu neexul lu tax nit yi di sëy ñàkk sëy moo naqadi nekk célibataire góor ak jigéen laajal célibataire yi ndax ñoom seen dund neex na ak lu ñu mënti am sëya leen ko gënal ci dàjji société bi ci ngay dégg ñuy wax waaw kay moom kay nag nit ki moom moom boppam ku ko neex lay nekkal jamono bu ko neexee noonu ngay dégg ñu naan góor ak jigéen ñoo yem góor ñi waratuñu nekk kilifteef parité ay wa fu góor taxaw jigéen war na taxaw ci wetam jigéen sax nag ni góor amee ñetti jabar ñeenti jabar war na am ñetti jëkkër ñeenti jëkkër waaw sëy sax nag moom waratul nekk góor ak jigéen dafay nekk góor ak góor su ko neexee jigéen ak jigéen su ko neexee ak yeneen yoo xam ni boo déggee kàddu yi rek da nga xam ni li ñu jublu mooy dajji sa pas-pas daaneel sa kër c'est le plan que Pharaon et ses notables sur Bani Israël ils pervertissaient leurs filles yastahyuna nisaakum ce verset est venu dans sourate Baqara sourate Araf sourate Ibrahim gis nga tëralin bi dox bi gaa yi di dox ci ci famille loolu pharaon na moo leen ci jiitu moom moo xàlloon yoon woowu moom ak i kàngamam ci kaw banu israil ngir wéral saxal seen noteel ci seen kaw wa yastaxiyuuna nisaakum yàlla mu ni noonu lañ doon yàqe seen njaboot gu jigéen yàq seen njaboot gu jigéen si pharaon utiliser la brutalité Aujourd'hui, ce sont des moyens subtils et sophistiqués qui sont utilisés pour pervertir la famille, éliminer la famille, tout en échappant à la condamnation des sentinelles des droits humains et des organisations internationales mbokk yi Firawna moom karwaasam ak bundu xatalam ngir plan wam ci yàq famille yu banu Israël bu dee tey nag nit ñi dañuy jëfandikoo ay jumtukaay yoo xam ni yi boo koy xool da ngay foog ni dara xewul fekk ñu ngi yàqate yàqate boo xam ni ñoo raw janax ci sàqum gerte loola pour lan pour ñi nga xam ni ñoom ñooy wax ci droits humains ak ak yelleefu doomu aadama wala organisation yi ngànk àdduna bi di xool ndax mbir yaa ngiy jaar yoon bañ a mën a dal ci seen kaw di leen reeteet amis auditeurs les nouveaux moyens de la perversion sont le mode la mode vestimentaire dévêtue dénudée c'est le viol comme arme de guerre c'est les grossesses hors mariage comme moyen de planter les germes de d'une génération d'enfants illégitimes dans la Oumma parmi les musulmans c'est la promotion du célibat la promotion du droit d'user et d'abuser de son corps comme on veut et d'autres insanités du même genre mbokk yi jumtukaay yu bees yi ñu jëfandikoo ngir yàqate sunu njaboot gu jigéen tasaare sunuy famille benn bi mooy colka bu bon bi ngay gis jigéen bu solu mel ni mu ngi ci digg guddeem futteeku mooy ngay xare mais nga ni siif jigéen dafa dafa nekk jumtukaay pour xeex noonu la ñuy jëlee ëmbal doomu jullit ñi def ko jumtukaayu xeex lislaam ngir fexe ba mu judd ci seen biir maasu jullit boo xam ne bii duñu nekk ay doom yu jaar yoon dañuy nekk doomi njaalu noonu ngay gisee ñu ngi fexe ba waaw ku mu neex na nga nekk célibataire sëy moom du farata même da ngay gis waa lislaam yu koy wax sëy du farata ku ko mën def ku ko mënul doo ko def sëy du farata la promotion de droit d'user et gis nga ñi ñu ni nit ki nag yaa moom sa yaram sa yaram yaa moom lu la ci neex nga ciy def da ngay sax gis ci biir néegu sëy de jëkkër ak jabar ñu ni jëkkër ji dafa siif jabar ji yóbbu ko police tëj allahu akbar gis nga façon wu xeex bi nga xam ne ñu ngi koy xeex jullit ñi di ko xeex sëy di ko xeex famille c'est ce qu'il faut comprendre aujourd'hui par ce que dit le Coran Pharaon laissait vivre vos filles il les faisait vivre dans la débauche yastahyuna nisaakum quant à il tuait vos garçons yusabbihuna abnaakum c'est le fait de les, de les priver d'un enseignement qui leur inculque les valeurs cardinales universelles de bonnes mœurs, qui leur donne les compétences, qui leur permettent de participer au progrès de la communauté et du monde entier mbokk la wax ci jigéen ñi moom ngay dégg ci bu bu alquran ne firawna yastaxyuuna nisaakum bàyyi woon na seen njaboot di dund di dund ci nan ci tedd ci ñàkk tedd ci wuññi seeni awra wuññi seeni worma di leen jaalooloo di leen siif def leen ñuy jaay seen bopp comme ni nga ko gisee tey noonu nag ngay dégg itam bu alquran waxee yu sabbihuna abnaakum di rendi seen doom yu góor yi mais rendeetu ko comme ni ko Firawna doon defee rendi bi tey mooy xañ leen yar duñ leen jàngal mbaax yi duñu leen jàngal ba ñu am man-manu tabax seen dund tabax seen société tabax àdduna bi c'était le but du colonisateur quand il confectionnait les programmes d'enseignement qui inculquent de mauvaises mœurs et des valeurs négatives aux apprenants colonisés bokk gis nga loolu moom moo doon jubluwaayu tubaab ba ba mu ñu notee fii bu doon tëgg programme yi nga xam ne moom la ñuy jàngale ci sunu réew yi nga xam ne ay koloni lañu dañ leen not day tëgg programme yoo xam ni yi amul benn njëriñ la muy jàngal nit ki kay mooy jikko yu bon la mu koy jàngal moom mooy loxoom yi du ci mën jëf dara ba tey jii ngay gis koo xam ne am na doctorat yépp am na mënul daaj pont bu bu buntu këram kale day woote je fay ñu dindi buntu kër gi xoolal ma lii ce qui est incompréhensible est qu'après l'indépendance nous ayons maintenu à nos jours le programme éducatif du colon aussi bien dans l'école de l'État que dans nos daara ce programme qui ne développe chez l'apprenant que l'esprit du consommer sans produire jaaxlewuma ci tubaab bi def loolu li nu war a jaaxal mooy bi nu moomee sunu bopp yor sunu réew di ko doxalal sunu bopp waa lan moo tax ñu continuer ci programme boobu nga xam ne moom lañ tubaab bi tëralaloon programme boobu mooy dox ci sunuy école mooy dox ci sunu daara naka naka tubaab bi gise woon programme boobu di dox ci daara ji dox ci école bi day def nit ka cay génne du nekk lu dul koo xam ni day lekk rek day consommer moom moom mënul defar dara waaye lu ñu defar mu ne que fuuf enfin ami auditeur le troisième volet de ce programme sournois de destriction de la umma de la communauté islamique est d'avilir nos dignitaires wa ja'alu a'izzata ahliha azilla pour nu couper de no grands hommes et des valeurs que ces grands hommes mbokk ñetteel bi ñetteel bi tànk ci programme u dajji tasaare umma bi mooy nag yàq deru kilifa yi rawatina nag kilifa diine yi boo yàqee seen der ngir ñoom ci ñoom ngay jaar yépp yi nga xam ni mooy mbaax yi nga xam ne ñoom lañ doon gis ci moom yooyu ngay yàqale màbbk alquran wax ko suratu naml wa jaalu aizzata ahliha la dañuy fekk ñi teddoon ñépp ñu yàq seen der fëtañ leen ci suuf tuumal leen gàddaay loo leen sax gis nañu ko fii c'était le but du colonisateur en satakan à marabu c'est aussi le but de leurs héritiers qui s'attaquent à tout ce qui peut nous rattacher à nos dignitaires. Ils ont dénoncé le chapelet, ils critiquent le zikr collectif, taxent nos cultures de jahiliya, condamnent le soufisme qui est la voie spirituelle de nos confrères yi bokk loolu moo doon jublukaayu colonisateur ba tubaab ba ca ba mu songee sëriñ si ju mooy it jubluwaay ñi nga xam ni ñoo ñoo dox ci seen tànk ñu tàggat leen teg leen ngir programme ba di continuer ñu bokk ci ñun di ay sénégalais di ay africain waaye tëb song képp kuy kilifa song kurus kurus rek kurus da ngay gis koo xam ne lim ko jaral ci wax ci kurus zikr nit bi toog di zikr ñu naan laa ilaha illallah loolu jaral naka mu xar suuf dugg ci mu fekk say mbaax mu ne loolu say aada yëpp ceddo la jaahiliya la waaw li nga xam ni moom mooy yoonu lislaam wi nga jaar muy tasawuf mu ne kooku moom shirk la bokkaale la kooku génn na sunna en adhérant à ces idées négatrices nihilistes tu rompes les attaches avec ta culture tes valeurs positives dans lesquelles ton père t'a élevé et éduqué. Et si tu le fais, si tu adhères à ses idées, tu n'auras plus de référence, plus de recours, plus de modèle, et tu seras le reste de ta vie vulnérable et perméable à toute idée et toute croyance, même si cette idée et cette croyance est contraire anti-islamique ngalawaay bul bul topp xalaat yooyu nga xam ni weddi nañu lépp fiir nañu ñëpp boo toppee xalaat yooyu dinga dagg buum gi la takke woon ak say aada takke la ak euh, mbaax yi nga xam ni ci la la say way jur mooñoon yar la ci dootoo am delluwaay liñ naan marja dootoo am benn marja dootoo sax am nag royukaay amatoo royukaay këyit nga rek woo xam ni ngelaw li dalay wal nga néew doole lu ñëw rek dugg xalaat boo dégg nga jël moom daal na nekk ni waroon na rek ak li nga xam ni moom ngay gis ci fi ngay dund même bu doon xalaat boobu sax kéeféer la même bu doon xalaat boobu dafa ñaaw dafa bon lislaam gërëmu ko dàq na ko li feeg ma ngi contre benn ci looy gis ñu koy jëf ci sa ci sa réew te ay kilifa di ko jëf rek xalaat boobu moom ngay topp moom ngay sargal la meilleure des créatures le prophète Mohammed paix et salut sur lui nous a averti qu'une personne sans référence sans modèle est comme une chèvre sans berger qui à partir de ce moment à la merci du chacal mbokk yi yonent bi alayhi salaam artu nanu ci nanu nanu fexe bañ génn mbooloo mi nanu am ay royuwaay nanu am ay delluwaay képp ku ko ci deful danga mel ni bëy boo xam ni bii daw na sàmm ba gedd na mbooloom gétt ga bëy boobu day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 الختام شئت للإسلام ركن عز دام شأنك الإنعام أنت بعد الله Le deuxième fait de société, c'est des bracelets magiques qu'on propose dans les réseaux sociaux. Je dis magique parce que Ce bracelet est censé résoudre tous les problèmes de celui qui le porte au poignet, de guérir ses maladies, sa tension artérielle, son taux de cholestérol et le protéger contre la crise cardiaque et d'autres maladies encore extrêmement graves comme le cancer mbokk yi beneen xew-xew bi mooy ay lam lam yoo xam ni mën nga ne lamu njabar la ñu koy jaay mag ñu ñu won ma ko ci réseau sociaux yi ma ni njabar la ndax bu dee lam bi moom mën na faj bépp jafe-jafe bu mu nit ki jànkoonteel ki ka takk rekk mu faj léppam bu feebaree mu faj feebar ba moo xam tension la moo xam xol buy metti la moo xam cancer bon kay kooku mooy mooy mooy saafara bi faj lépp ce bracelet n'est pas licite pour un musulman, qu'il soit homme ou femme. Ce bracelet est interdit. Pourquoi? Car un groupe d'hommes, de dix hommes vint faire pacte d'allégeance au prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Il accepta le pacte des neuf et refusa celui du dixième. mbokk yi lam nga xam ne mooy faj daganul ci jullit moo xam góor la moo xam jigéen tere nañu ko ko moom naka bàyyi euh, Uqba ibnu Amir al dafa ni bis fukki góor dañu ñëw di jaayante si ak yonent bi alayhi salaam fa bayaa tis tisa wa amsak an bayati rajulin minhu mu nangu jaayanteeg juróom-ñeent ñi ka ka des ka ca des mu tëye loxoom joxu ko ka jaayantewul moom ñu laaj ko waaw lu lu luy mbir mi ba tax waa ji jaayante woog moom yonent bi alayhi salaam tontu xoolal gars yi ni que pourquoi tu refuses l'allégeance de cet homme il répondit il porte un gris-gris une amulette à son avant-bras aussitôt l'homme arracha l'amulette la jeta. Le prophète alayhi salam lui tendit la main et accepta son islam. Il ajouta, quiconque porte quelque chose, un gris-gris, une amulette, il fait du shirk. Bon. ñu laaj yonent lu tax kii jaayante woog moom mu fi adudihi tamima moom dafa takk ndombo ndombo la takk ci loxo bi téere baa ngi ci loxo bi waaja dagg téere ba sànni fa baayahu rasulullah thumma qaal man allaqa faqad ashrak bi mu ko daggee sànni yonent bi salaam daal di tàllal loxoom ñu jaayante mu teg ca ni képp koo xam ne takk nga yu mel nii mu ne bokkaale nga Dans une version rapportée par Sayyidatuna Aïcha radiallahu anha, le prophète alayhi dit, celui qui porte quelque chose pour repousser le destin sera livré à cette chose qu'il porte. Ok. ci benn riwaaya bu Sayyidatuna Aïcha mu man allaqa shay'an li yudfa'a bihi al-maqadiru Sayyidatuna Aïcha moo ko mu ne wukkila ilayhi ngir nga nga nga nga nga dàq ci lu yàlla dogal wala nga xëcc ci ay dogal moo ne kooku bokkaale nga la sorcellerie l'amulette c'est-à-dire les gris-gris et le talisman ce talisman c'est c'est d'ensorceler un homme pour aimer une femme ou une femme d'aimer un homme contre sa volonté tout cela est du shirk dit le prophète alayhi salam cependant les savants ont accepté de cette interdiction un gris-gris fait à partir du Coran ou de exemple exemptes de tout shirk mbokk yi yonent bi alayhi salaam mu ne inna ruqa wa tamaami wa tiwala mu ne lii nga xam ni moom mooy njabar lii nga xam ni moom mooy ay téere yi li nga xam ne moom mooy naap naap mooy nga nga def nit ki ba mu bëgg ku mu bëggul ko koo xam ne xolom jubu ko woon mu ne loolu shirk bokkaale la boroom xam-xam yi ni waaw ba mu des téere ba nga xam ne ñu ngi ko defaree ci alquran wala kàddu yañ ci bind xam nañu ko te amul lenn lu ñaaw amul lenn loo xam ni bokkaale la quant au bracelet magique il n'est pas un remède pour un croyant car le prophète alayhi salam dit qu'Allah subhanahu wa a descendu en même temps que chaque maladie son médicament soignez-vous donc mais ne vous soignez pas avec du haram mbokk yi bu dee lam yi nga xam ne nag lamu xëram la mooy gis nga am na weñ yi ñuul yu ni di di takk ak lam yi nga gis ci euh, réseaux sociaux yi yooyu du saafara ci julit du saafara ku gëm yàlla ndax yonent bi alayhi salaam dafa ne yàlla dafa wàccee feebar bu mu wàccee wàccee na la koy saafara fa tadaawa wala tadaaw bi xaram mu ne na ngeen faju te bu leen fajoo lu mu ne nag yàlla deful suñu wér ci li mu xaraamal ci ñun amis auditeurs si comme dit le messager Allah n'a mi mis notre remède dans ce qu'il nous interdit le port de bracelet, même ordinaire, qui est interdit à l'homme, ne peut en aucune façon servir le musulman. Et le bracelet est autorisé à être porté comme parure par la femme. Et pourquoi? Pour charmer son époux. C'est des bracelets à ses poignets, ses pieds, des bagues à ses oreilles, la chaîne à son cou, les ceintures de perles à son rein. Mbokk yi léegi nag xamal ni bon lam yi ñu lay jaay di la wax day faj lépp day defar sa tension ki mbir loolu amul wax waxatuma lam yooyu nag dama wax lam kese waa ji dem defar benn lamu xaalisam defar ci ay rafet rafet pour rafet rafet loolu tere nañu ko góoru jullit góoru jullit du takk lam jigéenu jullit lañu may mu takkaayu bokk na ci takkaayam ay lam ci loxoom ci tànkam ay jaaro ci ci ba ci ci baaraami tànkam takk chaîne ay chaîne ci ndigam yooyu jigéen lañu ko may mayuñu ko góor d'ailleurs je rappelle à nos femmes l'obligation de prélever la zakat sur leur parure en argent en or et en diamant quand la valeur de ces parures atteint le nisam le nisab c'est-à-dire le taux imposable de quatre-vingt-cinq grammes d'or si long pendant un an mbokk bon ñu fàttali ni ci sunuy jigéen ni leen seeni takkaay gis nga takkaay yii xaalis wurus jama bu ko jigéen amee mu peese ka mu mat nisaab nisaab mooy valeur bi mat na njëgu juróom ñett fukk ak juróom ci garaamu wurus boo xam ne yor na ba mu mat at rek dafa ci war a génne asaka quant à l'homme on ne lui permet que une bague en argent non sertie d'or ni de diamant c'est cela la sunna et je vais vous en dire les textes bu dee góor jaaroo loxo kese lañu ko may boo xam ne xaalis lay doon warul am xaqiqa or warul am xaqiqa jamaa loolu mooy sunna déggal nu souci Anas rapporte que quand le prophète alayhi décida d'envoyer une lettre au roi de Rome on lui dit qu'un roi ne reçoit pas de lettre sans cachet il se confectionna une bague en argent qui lui servait de cachet Anas nee na yonent bi alayhi salaam dafa bind lettre ni nañ ko ko joxal buuru Rome ñu ne ko a ah, buur yi ñoom laa yaqbaloona kitaaban illa bi xaatim ñoom ñoom téere bu amul cachet lettre bu amul cachet duñu ko duñu ko jël duñu ko nangu protocole bi loolu la laaj fa taxasa xaatiman min fidda yonent bi alayhi salaam defar lu benn jaaroo xaalis boo xam ne moo doon cachet sur la bague du prophète il était inscrit Muhammad Rasulullah c'était inscrit de sorte que Muhammad est en bas Rasoul au milieu et Allah au-dessus. Si nous étions à la télévision, je vous aurais montré la disposition exacte de cette inscription sur la bague du doigt de la meilleure des créatures, le prophète Muhammad paix et salut sur lui mbokk yi jaaro yonent bi alayhi salaam lañ ca bindoon nga xam mooy cachet mooy Muhammadu Rasulullah ñu bind ko nag muhammad ji moo nekk ci suuf rasul nekk ci kawam allahu nekk ci kaw parce que yàlla dara du ko tiim bu doon tele dama lay wan ni ñu ko bindee ak ni ko yonent bi alayhi salaam doon caché selon al le prophète alayhi salaam nous a interdit de porter une bàgg en or il s'agit de l'homme quand on interrogea Atta sur le port de bàgg en argent serties d'or il dit c'est réprouvé pour l'homme mbokk yi bara nee na yonent bi alayhi salaam nahaana an ittaxattum bi zahab tere nanu nuy takk jaaro loxoy or or ñu laaj ata waaw góor bi takk jaaro loxo or boo xam ni xaqiqa ba jaaro xaalis boo xam ni xaqiqa ba woo or la nag wala wala weñ gu ñuul mu ne fa karihahu mu ne sib nañu ko noonu itam ngay déggee góor du takk weñ gu ñuul jigéen sax du takk weñ gu ñuul weñ gu ñuul pour développement la alxadid sayyiduna ali radiallahu taala anhu raconte que le prophète alayhi salam souleva la soie de sa main gauche et l'or de sa main droite et dit ces deux soie et or sont haram pour les hommes de ma umma et permis aux femmes de ma communauté mbokk yi karamallahu wajha sayiduna ali ki masul sujootal xiram nettali na ni yonent bi salaam bis dafa tëye benn tissu sooy soie ci loxo càmmooñam yëkkati wurus ci or ci loxo ndeyjooram daldi ni ñaar yi xaraam na ci góori samay xeet dagan ci samay jigéen inna haadayni xaraam ala dhukuri ummati xillun li inaasihim Ses orientations sur l'or et la soie englobent toutes les parures en général. Toutes les parures sont interdites à l'homme et permises à la femme, mais pour son époux et sa satisfaction personnelle, l'homme, c'est une bague en argent qui lui est autorisée. mbokk yi jàngat yi jëm ci wurus euh, nga ne daal ci takkaay yi rek takkaay daal tere nañu ko góor lañ ko ci may mooy jaaro xaalis jigéen nag may nañu ko mu takkaayu ngir moom ak digganteek borom këram ak moom ci boppam rek en tant que jigéen bànneexu boppam xool boppam mu rafet waaye takkaay moom góor ak jigéen a ci yam mayuñu nu ko ci buñ dee jullit ñun ñuy takk lamu xaalis weñ gu ñuul astaghfirullah wala jaaro weñ gu ñuul kooku moom du takkaayu moo xam góor moo xam jigéen enfin un homme qui porte la soie et les parures dans ce monde ne les portera pas dans l'au-delà où l'homme est autorisé sera autorisé à emporter au paradis le prophète répondit à Sayyiduna Omar qui lui dit d'acheter une tunique en soi pour recevoir les délégations et pour diriger la prière de vendredi il lui dit seul un homme qui n'a aucune part dans l'au-delà porte ces choses mbokk yi góor moom buy takkaayu ci àdduna wala muy sooy sol sooy ci àdduna du ko sol alaxira alaxira aljanna yooyu yëpp day daggan ci góor waaye ki koy sol ci àdduna du ko sol alaxira mooy du dem aljanna loolu nga ciy dégg yonent bi alayhi salaam Seydina Umar ni ko waaw